muy groupe toppkat bi nekk ci Facebook am na nag lu ci yees enquêteur ya nekk ci division spéciale de cybercriminalité ci ndigalu procureur de la république daat nay teg loxo kii di Thioro Diouf Cissé soxna si nag janoo na ak àttekat bi taskatu xibaar bi nga xam ne moo nekk ca Walf TV am compte messager bi ñu duppee Thioro Maxu Mandela ànd na ak avocatam bi di maître Aïssata Sabaha moom mi dafa won lox tollu nag ci juróom-ñaari weer biñ ko njëkkee déglu nag niki démb dafa amoon ay mitit ci biir bi taxoon nag ñu daal di dakkal lii di interrogatoire bi moom Thioro Diouf nag ci xibaar yi nga xam ne jot nañu ko jàpp nañu ne nag bokk na ci groupe Topka 221 bokk na itam ci groupe bi nga xam ne mooy Kayma Dey la. moom nag am na kaay yu bari yoo xam ne moo ko siwal bokk na ci bu Roxaya Dabatine ak kii di jigal nekk producteur fële ca Sen TV moom mi nag dañu jàpp ne sax ab pervers sexuel la coow li nga xam ne nag moo tukkee ci kaawas yi tax na nag ba ñu baax ñu teg leen loxo enquête bi nga xam ne ubbi nañu ko tax nañu daal di jàpp kii di Kiné Anne Diop ñu gën ko xam ci umu xayr yi ñoom ñi sax yóbbu nañu leen ca parquet ba AGT News buy ba tey ci wàllum xibaar ñu wax nag ci médiation bi nga xam ne ci weeru juin ba la ñu génn xalif généralu Médina Baye du Cheikh Mouhamadoul Mahi di Ibrahima Niass def na ko ci coow li nga xam ne moo am fële ca Soudan ci diggante l'armée bi ak paramilitaires yi nga xam ne ñoo nekk ci force de soutien rapide de FSR xam ngeen ne doxoon na ci tànku jàmm ba am ci ndam lu yaatu dëkk ba jamono ji nag yëngu na lool ci ab bataaxal boo xam ne yónnee na ko ci immédiat mu ngi sàkku nag ci protagoniste yi ñu daal di toog ci benn table waxtaan ba mën a fay taal bi nga xam ne tàkk na jamono ji ca réew moomee di Soudan ba wis ndox mu sedd guy ci coow li nga xam ne moo amoon foofee ca Soudan ba jibboo sax jotoon a am jot na nag ñu daal di baral suñu loxo ba def ab boo xam ne képp koo xam ne rek yaa ngi yee fitna foofee ca Soudan ñu déglu la ngir mën a xam yan saafara nañ lay jagleel la ngir mu antu kilifa diine gi jàpp na ne ku ne dafa war am loo bàyyi bu ko defee déggoo gi daal di jiitu ngir ku ne ca Soudan mën ci gis boppam rawatina askan wi nga xam ne jamono ji ñu ngi takk seen i bagage di gàddaay di wuti yeneen yoo xam tekki ji sàkku na itam ci njiitu réew bu Sénégal Macky Sall ngir mu dugal loxoom ngir dal ak jàmm am foofee ca Soudan sàkku na lu ni mel itam ci mbootaayu xeet yi fii ci diwaanuk Afrique rawatina si CEDEAO ngir ñoomit ñu xar seen tànk tubéy ba jàmm dellu si ci réew moom mi laata muy wàlliyaan ci yenn ni diwaan ni mu ko defee ci nguur yi noonee itam la ko sàkkoo ci kilifa diine yi ak organisation islamique yi nekk ci àdduna gi yépp ngir ñu def lu ni mel xale général defee lépp loo xam ne mer la ak naqar bu askan wi amee ñu mën koo teg ci suuf moo tax dinañu woy di boole suñuy doole ngir jàmm dellusiwaat foofee ca sudon lu weesu loolu xalif général bu Medina Baye sàkku ci kilifa diine yi rawatina taalibe yi ak fu ñu mën a nekk ñuy jàng alxuraan ci zawiye yi wàcceel leen kaamil ñaan allah subhanahu wa ngir jàmm am fi nga xam ne moom mooy sa Soudan rawatina ci àdduna gi yépp beneen kaa am na Sitor Ndour bàyyi nañ ko ci tënk moom mii ñu ko doon toppee mooy viol ci benn jànq boo xam ne doon liggéey ci këram lii nag taxoon Gabriel Mer ni mu ko defee ci Adji saar taxaw temb di jàppale soxna si nga xam ne fukki at ak juróom-benn wala sax gune gi nga xam ne fukki ak juróom-benn dong la am jamono bi nga xam ne mu ngi koy sàkku di ko tëddee féministe bi jamono ji nag mënta wanaasu dogal bi nga xam ne moom moo tukkee ca tribunal ba attekat bi dafa daal di acquitté ancien directeur général bu COUD au bénéfice du doute Gabrielle kan jàpp ne ax ak yelleefu jigéen ñi fii ci réewum Sénégal dañu ko salfaañe te lii nag guléet mu am ci taarix fii ci Sénégal xoxatal la force la ba pare nag daal di lay tëddee loolu la jigéen ñi di dund fii ci réewum Sénégal te nag li ci gën a doy waar mooy ne dara du la ci fekk bu dee nag kilifa nga def lu ni mel nee na daal lii sax dafa mel ni dañ koo def mode mu nekk tendance ci góor ñi fii ci réewum Sénégal lii la soxna si daal di siwal ci compte Facebook am AGT News